daanoon jar lu ëpp ñeenti junni sax soble tàmbali nañ ko jaayee ci ndoxteelu semaine bi ñetti junni bu teg juróom téeméer ak ñeent. waaw soble bi soble bi moom mi ngi mi ngi wàññeeku lu jógee vingt trois mille ba dix neuf mille donte sax wàññeeku na jàpp nañ ni rek ba léegi cher na te métti na itamit ci ñoom jaaykat yi. non non puisque ba léegi ñun soble bi li ñu koy jëndee dafa xaw a cher dafa cher dañuy jënd soble des fois nga dégg conteneur bi ñu ne 18500 puisque man récemment bi ma mujjee jënd c'était 19750 moom laa mujjee jëndee quoi. waaw am na réduction non pas bu baax puisque vraiment ci même réew moom bu ñu bëggee dégg-dëgg soble fu ñuy jaayee kilo soble mille francs jëm kaw ah métti na ko ci population bi te commerçant yi ñun ñii mënuñu ci dara. mu nekk lu leen tiital ak màggal Touba bi ñu digmal. waaw de notre côté moom ñun màggal bi dañ ci xaw a sax. da ngay xaw a ragal sax que ni mu am rupture quoi puisque xam nga fii Sénégal événement la ñuy yàkkamti souvent dañuy yokk yenn yenn prix yi te soble bi actuellement li fi nekk ci marché bi bëriwul. gars yi da dégg nag ñu ne dégg génn ci port bi tout ça là mais bu fi benn conteneur weccee ñaari conteneur fii benn conteneur dafay wàcc léegi léegi léegi jeex balaa muy wàcc la ko nit ñi di jënd ci marché bi ni puisque marché bi marché bu mag la. naam sax ñoom nemmeeku nañ ci ab coppite waaye doonul li nga xamante ni dalal na seen xel ndax soble bi doon na lu jafe ci loolu ñu ngi ñaax nguur gi mu jël ci ay matuwaay.